yéen a ngi teewlu seen seen Rewmi 24 TV. jaar sama gars yi maa ngi di siyaar baax leen nekk da ngeen gis ne arrestation waa Kenya di nekk Saint-Louis la nekk Saint-Louis mooy presse international QI QI bi nekk Saint-Louis ak invité international. ñoom la ñu buub nii képp fa amoon mbokk bu koy woog naan ko ay ñëwal nga liggéey si ñaar di xamal ne instant bi mu ngi ci mbaam bi doon ne jàpp nañ ne ñun ñëpp ngi nii de ku xamul luy kiiñat kiiñat mooy sa mbokk yi ngay am ñu nekk Saint-Louis Dakar Thiès Mbour di lay woo ay liggéey naan la ñëwal nga liggéey si da ngay fayee ko xaalis patati patata maa nga xam ne bis moo fa tegoon sa tànk lii moo la fa lii la fa naroon fekk dund bii la ndax dañuy teg stratégie leer nañ ba nga ñëw boo ñëwee nag ñu expliqué la ñu dëggal fen yooyu la woowee dëggal ko fexe koo dëggal ba sa xaalis dugg ñu soog la woon nag ñu nag yéen vrai mbaam la mu nekk nii fa egg si yoon lii moo la fay fekk lii nii lii mooy lii kuñat mooy lii ku bu koy woo leer ne lii moo ko fekk foofu noonu demoon Saint-Louis dund bu bon fa naroon fekk waaw boo egsee duñu duñu la teel a woon lii nii dañuy fexe dëggal liñ la woowee dugg la ci benn ot ci benn auberge sax fexe looyal la ko maanaam maanaam ba sa xaalis tant que sa xaalis duggul ñoom dañu bëgg dañu maanaam dañuy dëggal stratégie yooyu ñu la woowee bu sa xaalis la woon kii nag yóbbu sa yóbbu la seen logement yu gën a normal yi seen logement yu gën a bon yi maanaam ñu woon fii ngay fii nga maanaam fii nga nar a nekk mbaam la ñu nekk ñi de boo taxit ñaf nañ seen maam ñu ngi si ñu ngi nii ñu ngi nii am mbokkam bu koy woo instant ñu ngi commencé tas ñu ngi Touba ñu ngi fépp ci région da nga leen moytu bu baax ak ci Afrique ñu